mbokk yi salaamaaleykum nuyu nañ leen ñu ngi ziar bu baax a baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm alhamdulilah fubal nañu ba pare Sénégal Guinée zéro bi partout ay dëkk yoo xam ne ay frère lañu ah man mii balaa sant man mii am na looy lañ bëj sama si biir ah damay génn Guinée. duggaat biir Sénégal euh, sénégalais yi ñu ngi foofu Guinée yi ñu ngi fii mais match boo xamante ni avant amoon na tuuti ay kàddu diggante entraîneurs yi Sénégal ak Guinée xam ngeen c'est toujours un derby mais dañuy rester toujours ay frères. partagé nañu les point léegi match nul nañu xanaa nag jàmm war naa am Guinée ñu bëri dañoo laal li mais obbi ngeen jaay fii jàmm rek yéen jàmm ngeen di am Mali ngi ne ñu tëj ah te bëgguñu tëj kenn. jàmm ak salaam bala jàlloo ah ay bare Keita Balde gis ngeen Bouna saar moom am na fa ay mbokk ñëpp Abu jàllook jàllook ak Babi la ñun ñoo ko bokk léegi nag dañuy dañuy xool ñenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy les Guinéens et les Sénégalais nañu lan la ñu apprécier match bi et après match Ablaye Diallo Diallo jëri Diallo jëri yàlla baaxul. baax na kay baaxul. jàllo ah, mu jaani alors léegi match bi. bi avant muy commencé doon nañu wax derby la match bi day metti diggante sénégalais yi guinéens yi léegi partagé nañu les points football nañ ko ci jàmm ak salaam nan nga ciy wax. ah bi nee na de. Hmm. nee na trop. Hmm. mais moo waroon gañe. kan moo waroon gañe. kan waroon gañe hmm? Guinée wala Sénégal. ah mooy gañe rek baax na. ku gañe rek waaw parce que yow ñaar yëpp waaw hmm. depuis kañ nga nekk Sénégal. ça fait deux ans. deux ans ah? mais tey noo jàngatee affaire bi jàll na si jàmm ak salaam bëgg nga kontaan nga quoi. waaw naa toog kontaan trop. Hmm. léegi bu Sénégal gagné woon man mooy doon. trop. waaw waaw. Ah, ah. mais tey lan moo doxul moo tax Guinée gagné ah. des na daal. non des na. Ah. waaw waaw mais ñoom ñaar ñëpp ngay supporter. waaw ñaar yëpp mooy supporter quoi. Mor Seye. Mor Seye seetaan nga match bi Sénégal Guinée avant match mu amoon pression seetaan nga ko na ko jàngatee. waaw ma ni ma ko jàngatee mooy am naa victoire parce que boo xoolee ginnaaw jëluma defet rek baax na quoi waaw mais am nañ manquant manquant yi feeñ nañ ci trop bu ñu sañoon moom dañuy gagné quoi ginnaaw yàlla suñu borom dogal ne mu demee nii tamit dañuy sant yàlla ko mais mais amoon nga pression ci match parce que première mi bi mooy loolu ah. non man damay am pression chaque jour match Sénégal parce que lu ma sañoon match Sénégal day gagné quoi heure buy football day gagné parce que sportif la footballeur la man lu ma sañoon chaque match rek Sénégal day gagné quoi. ah machine bi ma ko jàngatee de maanaam c'est que man ma gis Sénégal Sénégal gisuma Sénégal boo xam ne mu na gagné eh, Guinée équipe bi ma gis nii franchement parler c'est que équipe bi dafa bëri ay manquant déjà ñu yaakaaroon gis ñu si équipe bi équipe bi ma gis bi gëmmu gëmmu woon sax mu gi Guinée dëgg fa yàlla mais quand que yàlla def na machine yi waat la waat lu gën la waat xëy na looloo gën xam ne loolu yàlla def te loolu looloo gën loolu dañ ko sant yàlla bu baax a baax macha allah mais nag damay ñaax Sénégalais yi macha allah ñu am courage ñu euh, maanaam ñu jàppale équipe bi dooleel ko pour mun a jëm kanam ñu bañ de découragé. am nga yaakaar ci équipe bi nga jot gis premier match ak deuxième match. franchement parler nag am amaguma yaakaar moom franchement parler. li ma gis nii nii nii. amul lan moo doxul si yow. attaque bi attaque bi dafa des franchement pare attaque bi dafa des premier match bi seetaan naa ko attaque bi dafa des carrément Sénégal war na ut beneen attaque bu baaxam boo xam ne moo gën attaque bi franchement pare bii moom doxul attaque bi doxul. ah Sénégal Sénégal xam nga Sénégal ak Guinée ñoo bokk ndey ak baay. waaw soo. xanaa café kay defar. Ah? waaw café laa ngi lay faral. après nga ma benn doos nga may ma ko nag. d' accord d' am problème. waaw ah, ñoo bokk ndey ak suñu suñu diggante moom. Hmm. waruñu am benn coow. Sénégal su amee victoire ci Guinée. Hmm. lépp waaw. soo fekkente ne Guinée moo am victoire ci Guinée. loolu tamit eh, ci Sénégal. loolu tamit. benn la benn la. Hmm. yëpp mu dafa war a kontaan. waaw ñu xam. ñoo bokk. waaw waaw benn dëkk laa. mais yéen na ngeen ñu bëggoon gañe yéen yéen ngeen ñu bëggoon gañe waxal dëgg rek yow da ngaa bëggoon ñu gañe Sénégal. ndax teg nga ma Guinéen. mun naa wax ah, Guinéen man kay. Guinée waaw waaw waaw xam nga man Sénégal waaw. Sénégal soo gañ man ka dëgg-dëgg Sénégal laa bëggoon mu gañe quoi. lan yow waa Guinée ñu lay mere de. non non man sénégalais Euh, ndax fii laa dëkk fii laa yoro yaroo waaw fii laa nekk maa ngi liggéey am jam uuti xaalis am jam waaw loolu moom Sénégal laa bëggoon mu am ndaam non marché bi seetaan nañ ko mais euh, liñ ci gis daal mooy euh, parce que Sénégal moo nekkoon favori quoi mais vraiment tamit ci biir marché bi biñ ko xoolee ba xool ko mais cinquante cinquante lañ gis parce que Sénégal bari na ay joueurs absents yoo xam ne waroon nañ fubal te fubaluñ mais tamit euh, ci côté entraîneur bi daal deuxième mi bi changement yi dafa xaw a yéex trop parce que bu fekkoon changement yi gën na gaaw marché bi deuxième mi bi Sénégal moo am euh, temps fort am quoi te foofu. ku mel ne Famara bu duggoon war na a dugal parce que am na sens bit quoi mais dama gis ne tamit euh, premier mi-temps bi Guinée ñoo moom match bi quoi ñoo fubal deuxième mi-temps bi ñoo moom match bi. Aliou jàmbaar oh, li ñuy wax mooy moom na assuré Malawi bi waaw mu jàpp si ngir yàlla xam nga jéem a gagné match boobu ñu am benn niil ak ñaari victoire waaw mën a mais lii lii gagné indiwul coupe bi non indiwul coupe noo non xel dalagul xel dalagul indiwul coupe d'Afrique. xëy na absent yi bu ñëwee na changé parce que ku mel ni Kalidou Koulibaly man bi ma ko ñàkkee dama manqué confiance trop. waaw ak Gana Gueye xam nga moom loolu loolu loolu ñooñu daal bu ñëwee dina baax. non jàmbaar la quoi. gars yi takkale ak absent yi nañ ko bàyyi mu mu liggéeyam parce que course la lii compétition la rek da ngay damee pour gagner période bi li ñu fubal nii nii nii nii ak ay absent manqué c'est normal parce que dañoo manqué ay joueurs bari quoi te liñ manqué da trop. mais yeneen joueurs yi fi nekk tamit ay jàmbaral parce que ñu ngi point yi moo ci am sens. mais remplaçant bi daal nga gis ne benn couac la. xaw na yéex waaw remplaçant bi moo yéex quoi. surtout coach yu Aliou Cissé noo xool bu baax a am. Aliou la de yi moo xool ku nekk nu mu koy tegee mu classé joueurs yi bu baax waaw loolu laa gis. waaw Guinée football na la nag. ah Guinée day bañ Guinée du bëgg nga gañe ko xam nga équipe bu bëggul nga gañe ko nii tamit gañe ko day jafe bëggul nga gañe ko bëggul jël défaite li mu bëgg nga bëgg coupe d'Afrique ngeen dem bu dee bu keeg mbaam la rek dañuy rayante kenn ku ko nekk da ngay bëgg victoire waaw mais Sénégal moom doom dañoo bokk lépp quoi bu sañoon Sénégal du ko gañe Sénégal tamit bu sañoon Guinée du ko gañe léegi match nul bi ñun ñaar ñëpp ñoo ko bokk waaw ñoo ko bokk alhamdulilah waaw bëgg nga ñu dajee final wala demi final aha bëgg waaw ah. final daal. mais waxal Kaba Diawara nag mu bàyyi muy def. mu bàyyi ñu dem ah waaw. waxum bàyyi muy def. d' accord d' accord am problème amul jaajëf. <laughs> yaakaar ba léegi nag comprendre nga ñu jàppale ñu jàppale équipe bi dooleel ko nekk si ginnaaw comprendre nga ñu xam ne dina baax incha allah. no su absent yi ñëwee mën na changé parce que ku mel ni Kalidou Koulibaly man moo ko ñàkkee dama manqué confiance trop. waaw a Gana Gueye xam ñoom noonu loolu loolu ñoo ñooñ daal bu ñëwee dina baax waaw merci waay. mbokk yi gis ngeen loolu la ñu euh, woon après le match muy le derby diggante Sénégal ak Guinée muy ñaari dëkk yoo xam ne ay frontières la ñoo bokk sax sénégalais yaa ngi Guinée Guinée yaa ngi Sénégal waaw noonu la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay amoon na pression mais lépp rek sport la si fair play dégg ngeen suñu mbokk guinéen yi. yëkkati nañu ay kàddu yu rafet ñaari jàllo yooyu noonu nga xam ne samay jaam lañu ah ak quelque sénégalais yoo xam ne jàngat nañu match bi ñoom ni ñu ko gisee ak tamit la futur ak diggante Sénégal ak Guinée mu ngi noonu sport la fair play góor gi laa àndaloon tey moo gàddu caméra bi góor gi ak Maguette muy góor gi Maguette <laughs> góor gi Maguette nañ ko defee noonu rek suñu tur yi dafa doy waare jaajëf gars yi kon ñu joxante waat rendez-vous le troisième match Sénégal ak Malawi dem nañu Colobane def biir phase jéem a xool la réaction des sénégalais et des guinéens ci CAN Coupe d'Afrique euh, Sénégal jaa ngeen jëf ba prochain match incha allahu rabbi